ko mhm. Griff Joob am na fulla ak fay ak ñi yaa boo nga xam ni amul benn problème mhm. Griff nekk na nit oyof koo xam ni mhm. maanaam dafa tabe maanaam ñëw ñëw sa programme teral la saa laa la wax moo gën a yomb nga mu ñëw sa programme nga may ko kon Griff bu ñëwul ci programme rek parce que am na lu tax ñaari dofam yooyu da nekk Iman ak Bibiche dañ jéem a xool ku ci tax dam nekk si jàmm quant à man moom li ma koy waxaat leneen mooy lan na mhm. jéem a am ak jaam ak influenceur parce que Ndiaye Lo gisuma ko mu traîner benn influenceur à part man mhm. mhm. moo tax mooy loolu moo tax nga tàkkalee ko loolu waaw mais ñu gis ne eh, eh, programme yu si bëri euh, Mak Vision la fi daan gis moo daan couvrir li nga xam ne moo di programme yi léegi gisatuñ ko léegi daanaka euh, sénateurs yi la ñuy woo wala yenn influenceurs yi lan mooy problème bi ba ki nga xam ne moo di mag gisatuñ ko ci yooyu loolu bon mag mag nag moo ngi moo ngi ci milieu ba léegi mm. récemment gis nañ ko ci mariage Cheikhouna Carrefour Business Group d'accord mo fa nekkoon mo yoro image yépp mm. et tout mais bo xolé mag dam na benn ben tontu bu mu tontu dem ci Sénégal bi ne du ma ñëw fu ñu ma wowul ah. tey bii il raison moy limay may ñëwaat ci li la waxol rek nit ku nekk boko ko ci programme mm. mënu laa fekk si ba lay wuy si parce que mag tay jarutu ñu koy présent ñëpp xam nañ ko mooy tundal ñëpp macha allah tarkalla mm-hmm. ay ngi dégg mm-hmm. tey bu ñuy xew si di wo ñeneen yeneen ay yeneen snapper mm-hmm. snap lolu lolu lolu man je me dis liggéey da ngay jox ak quoi bañu ñu woo ay snapper mhm. mais da jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yoleen quoi waaw ci mhm. ci ci ci affaire yi. Mhm. parce que moom la daan gis ak griffe. mais tey gisuñu griffe nga xamante ni moom moom moom mooy euh, Mavision. alors loolu nekk problème boo xam te ñu ci bëree bëri dañoo gis réseaux sociaux yi di wax de xam naa ko. griffe joo am na ful ak fayda ak ñi yaa boo nga xam ni amul benn problème. griffe nekk na nit ku oyof koo xam ni. maanaam dafa tabe mhm. maanaam ñëw ñëw sa programme teral la saa laa wax moo gën a yomb mu ñëw sa programme nga may ko bu ñëwul ci programme rek mhm. parce que am na lu tax griffe bu ñëwul ci programme rek am lu tax parce que griffe amul benn problème da ci boutique ngay di waxaale a yàgg sax mu ne nga naa mu fay xaalis jox la kon xam nga ni kooku dafa oyof mhm. nga mën a woo quatre heures du ñëw Sinaba la te fayoo ko dara yëgul succès yëgul succès dafa wàccee boppam te du ba pare toog di ko wax man xam naa Griff Diouf kon bu jéemee ba ñëwul ci programme moom Mag Vision. Mhm. am na lu tax. mais la moo tax jigéen sénégalais yor maanaam lu bees xam lu bees maanaam tey nit dafay nekk di defi teraanga loo xewle mu jàpp ci ba ñu gis ne tey dañuy jékki-jékki rek ku bees ñëw ko teg ci seen kanam moo waral problème boobu noonu ba suñu réew mi daal loolu dafay bari lool. xam nga Sénégal booy defal lu baax ci poste bu bëri lay nekk mais gis nga lu bon li. Mhm. da ngay denc saa yi boo leen amee problème mu gën la dëgg du romb nopp. gis nga sénégalais. Mhm. boko ko jëndaloon iPhone 14 ni legui ni nga dina benen iPhone 14. il préfère bay iPhone bi nga jëloon pour jëm jël bu bees dafa sémmé. deug la lu bees la xam. Sénégalais mo bëgg lu bees. même jaaykatu was bi nga xamni mu ngi jaay 250 wala 500 cent. il préfère dem jënd ci ku cinq cent kii deux cent cinquante bi pourtant c' la même chose. deug la mais manam Sénégal fo nga am lo lo woné manam fo nga am loo ñotti. pour gaay yi mën a ñëw fekk si la. lu bees la ñuy bañ. waye nak nit ku nekk nak bo gëmé sa bop and ak li nga bëgg yàlla na ci fekk ci kattanu yàlla suñu bopp. Mhm. mais lan moo tax yéen influenceur ba léegi mënu ngeen tolo ki nga xam ne moo di ñaaxaral ba ci Zénith bi man je croyais que un influenceur dina dem top ki nga xam ne di Sidi job à Zénith mais gisuma ku mooy ñaaxaral loolu te dafa jógee ci Wally Seck ñëw jàppale ki nga xam ne moo di Sidi job. wala ba léegi woowuñ leen. waaw mooy li may wax rek ñun topp ñu benn artiste te xaw ma ah, man de xaw kan mais man flash mo waaw top ma si ginnaaw ben artiste artiste mo wo téléphone dama kët alors flash mo dama la soxla. Mhm. man du ma wuy si la mooy dëgg li tax du ma ñëw wuy si mooy parce que bu ëllëgee suba dañ naan moom moo ma toppal wala moo fi ñëwal. Mhm. am naa fula ak jom ñoom ñoo ngi ci musique bi man maa ngi sama influence bi nekk. Mhm. ci laay liggéey ba keroog ñu may soxla. Mhm. bu ñu ma soxlawul ma xam ne que yàlla boolewuñu. Sidi Diop bu dee xamante nañ. bu dee Wally Seck xam peut-être bon je me dis je vais pas dire que xamuma parce que jot na suñu ay vidéo. xam naa ko. yaa ngi xam jabaram bu baax ñu dëkkool maag moom. yaa ngi dégg bu dee keneen a keneen xam nañu kon nag ñoom bu ñu choisir seen yenn influenceur mhm. ba jël leen yóbbu leen. Mhm. donc def lu leen ñaanal rek mais ñun on va pas être là à faire des si ñoom. Mhm. wala benn affaire. mais toppoo benn euh, artiste mais je me dis diggante ak Baye Mass yaakaar naa nekkoon nga ci ginnaaw di ko dooleel. waaw ah, Baye Mass moom sama frère la. d'accord Baye Mass c'est mon frère kooku man maa ko bëggal sama bopp. Baye Mass dama doon topp yi ma doon def sama au début sama premier vidéo yi ma doon def daanaka ay somme laa ba yàlla def ba au moment donné ñu xamante mu boole ma ci ay kilibam mhm. ñuy liggéey mhm. ñuy liggéey ba fii mhm. mu nekk sama gaan xam nga ñuy ànd mais nag récemment nii moom gën a ñëw déggante waaw gën a ñëw déggante lan mooy problème bi ngeen gëj a déggante waaw bon je sais pas bon maa ngay woo nangu ma wuyu du ma jël hmm? des fois mu jël ma ne ma ma ngi lay rappeler après mooy loolu parce que bon je me dis que waaw <laughs> bon du lépp lañ mën a wax tamit quoi. mais dafa mel ni am na lu ci ci soo mi sama sama xarit bi am problème ba ba nga koy woo wóoru la jël. waaw des fois mu jël ma des fois mu ne maa leen dafa boo xam ne dañ koy joxe wala joxe war ko def après du ma ko gis ba récemment kañ barki démb ak Ndiaye lañ lañu lañu la ñu waroon gisante je n'ai pas vu. ba léegi nii. ba léegi nii. ba léegi nii te amu ngeen benn xaar ma yàlla avant-hier avant ngeen am yooyu noonu. am nañ am nañ ay am nañ ay ay ay ay yoo xam ne. am ah, nañ am nañ sama diggante ak moom. Mm-hmm. ba tax na peut-être mënu mënu mënu diggante ak man wala mënu maa gis. wala mënu ñoo mënu guñ toog quoi. waaw. maanaam luñ ko wax la sa diggante ak moom la wala tey loo ko def la ba mu war la jàppal lan mooy problème bi. waaw lu am sama diggante ak moom la. lu am sa diggante ak waaw. Ah. moom quoi. Mm-hmm. waaw loolu da nga ma koy kodeel xam naa moo tax doo ma ko mën a wax. waaw ah? waaw mais. dinaa peut être dinaa ko leeral léegi ci kanam. wax leeral ñoo ko rek balaa ñëw tëj ko lan lan lan tey maanaam tey euh, da nga nga da nga def dara wala moom mu def la dara wala soit xam nga diggante ñaari ànd influenceur artiste seen diggante bu yàqu duur la rek xaalis lay doon. dëgg la tey lan la ah, mën na nekk jigéen. jigéen tamit waaw ah, xaalis wala jigéen parce que ki ma gënoon bëgg. ah waaw. Baye Mass nangu sa gel. ah si Baye Mass loolu loolu na ma ko. ah Baye Mass loolu loolu def na ma ko. Baye Mass def na lu raw loolu. tey yaa ngi continuer di ko woo. non Baye Mass kay léegi wootuma. bàyyi nga ko bàyyi naa Baye Mass. bàyyi naa ko fini. maanaam dafa nangu sa gerte léegi nga bàyyi ko. waaw ak yeneen li ma def man bàyyi li ma def bëri na. bàyyi li ma def bëri la yore xaalis wala lan lépp laa lépp la yore na xaalis nangu na sama gel ah. ah? <laughs> mais yaa ngi koy raay de Falas te daawoo raay ay wax ah. Falas ñëpp dañ la xamee teg ci table ji dóor mu daanu te yaa ngi raay te sa waay ni ngay waxee ci moom dafa mel def na loo xam ne métti na yow bu war bu raay wax ji ñaata la tolloo li ñu naan bu ree kaa xam lépp taw waaye su ma waxee lépp ngi ci sonnee début carrière am nekk ci ah ah wax ci ba Baye Mass léegi dam naa ba gis ni que sax léegi bu def ay vidéo wala dara ah bokkutuma ci influenceurs yi kay publicité la moom Baye Mass def loolu Baye Mass amul benn vidéo bu publicité am te te defum te man bokkuma ci voilà bu dara amee man bokuma ci premier personne yi ñu woo teg ma ba ma idée parce que man je suis chargé de sa communication. hmm waaw. je suis chargé de sa communication bu paré yow ngeen ngeen am jafé jafé yi nga koy woo mënoo ko jot. ah peut légui ni nii su ma ko woowee jot ko waaye xaw ma de. <laughs> Hein? ah est ce que du ma ko woo xool. ah SL ñu woo ko légui am mu xol na xool essel daaw est ce que duggul ma dafa déranger. non essel rek SL ah. parce que nag euh, yàlla mën na lu ne yàlla mën na def. Euh, ah. ñàkk waxtaan am rek mais xam naa ne réeroo amul parce que yéen vous êtes des frères te yàgg ngeen. ah rek maa ngi koy woo nii de. d' accord maa ngi koy tegal ci micro micro bi ah, ñu ñu ñu déglu ba xam ne ko wala lan lay def. wala ne pas déranger ah, rek peut-être tey. xam <laughs> nga xam sama waa laal kenn du ko kenn du ko mais mais mais mais tey tey tey naka ngay jàngatee lii nii. maanaam ñu si bëri mën nañ koo jàppe woor wala mën nañ ko jàppee beew wala man nañ ko jàppee li nga xam ne moo di succès tey nan nga koy jàngatee ndax nit nga daan sodd ci moom am na ku lay rappelé est-ce que du bàyyi maas mënu maa woor parce que bàyyi daf ma bëgg uh-huh. bàyyi mënu maa woor uh-huh. mënu ma mënu ma ko waxee woor waaw mooy li ma wax rek uh-huh. peut am loo xam ne peut-être mu am ci biir loo xam ni peut-être mënaguma dégg téléphone d'accord dafay xaar peut-être loolu jot wala loolu réglé wu pour ñu mën a déggante ma ak moom mais des nag ñu daje ci milieu ñu saafal day waxtaan. wóor na ne que dinañ wax téléphone. mais après doo doo doo am doo am doo am continuer lay daw quoi. parce que dafa mel ni dafa am ay dëgg yoo ko dencal te bëgg nga ko. ah nangu gelu jàmbur kay ba pare. toog ak moom nekk ak moom kay. saa na ngay kaañoo wala da ngay dalak wala kaañoo c'est vrai que dafa nangu sa genn. non lu raw loolu def déggoo li ma la wax xanaa bàyyi ma nangu na ki ma bëgg la jël. nga tuy calme yow defoo ci dara. ana xale bi daf la bàyyi. non xale bi man maa ko bàyyi ma ngi toppaat sama ginnaaw may e jamono bi amut ma dara eh, mënu ko nangu ba pare non toppaat sa ginnaaw na flash maa ngi flash ak yow maa ngi flash leneen yaa ngi flash leneen maa ngi flash xale bu xaay jamono ji waaw mais xale bu déggee lii kon xolam dina gën a non loolu problème am la loolu problème am mais lan la ko bàyyi maas woon ba mu war laa mën fee bàyyi si après ay guddi da koy wéyal ay wayu neex naan du ma la mos a bàyyi hmm? wayum boobu mu génn rek yow wax ju dëgër nga ko daan wax xanaa ah ma ne wax ju dëgër nga ko daan wax xanaa ah non man xam nga man moom noo man moom nay góore rek. Mhm. moom <laughs> ah, moom la ko créé loo. ah moom bidon yi de. bu dem de. ah yow su bilaay ni bi dafa mel ni yaay borom bidon nii de. <laughs> maa taxul maa ngi dund ba léegi samay lamp ngi tàkk fayagul de <laughs> bu dee tey rek. waaw ah. sama lamp fayagul. mais de ce fait dafa métti waxuma laa la gën a jege ko. tay yow ki nga xamne daf la jégué won nga bok ci ñi nga xamne dañ ko daan pousser tay mu def lu mel ni xam nga lolu lolu lolu dafa graw da ah doy war doyna doy doyna war doy c'est la première fois nga waxo ah nu may def dama muñu muñ ba mënatuma muñ. Mhm. comme jigéné muñ ba xëy suba gën kërëm ah. waxuma la man góor. ndeysaan. jamono jigéen dañuy woré rek. Mhm. dañuy wor rek façon wor bu ne. Mhm. est ce que do tak rek ben ah bala nga tak gis lu bax <laughs> Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal. Abonnez-vous, Charles le Sénégal.